dëgg la nit ñi liggéeyul nit ñi amuñu da ngay jàkkaaroo sa yaay mu soxla junni nga koy xool nii te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee sax moo la ko gën a nañu état jàppale nañu état jàppale ñu nekk ñu ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñu leen ñëw mooy métit maanaam fu mu méttee fu mu méttee nañu ñun jafe-jafe bi ñu gën a am xam nga ngeen wax si làmb wax ngeen si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñun li ci jaaraale day nekkaat loo xam ne dañ ngay répété baa nga njool mu doon wax sànq waxee moom xool lay waxee parce que buy waxee xool moom mën na wax sax ñaar parce que moom xool lay wax dëgg mais tey xam nga dëgg ko jëlee suukar ba mu sax nga jox ko nit loolu la ñuy def man ko bi may waxee mooy jeunesse bi jeunesse bi waxuma làmb de man damaa romb làmb mooy nit ñi ñu dañoo dëgg si banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee man damay yeewu ay nit taxaw sama buntu kër parce que alxuraan damay war a ndékki damay bàyyi sama léegi jox nit bu ndékki lu tax ma koy man mun naa ko mais est ce que keneen mun na ko dëgg amuñu da ngay jaaxaaraw sa yaay bu soxla julli nga koy xool nii te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee sax moo la ko gën a nañu état jàppale nañu état ñu nekk ñu ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw. kon tey ñun bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu métti am loo xamante ne mooy suñu rongo di xonk da ngay jàkkaarloo ni man waxoon man damay dem ba sax damay jëlale laa ma bii laa yi yàlla doomu moomu tey donte xale laa ndax man damay gis koo ne teg ci la du fi am dara lu ci def te am ay ay ñetti doom ci biir kër mais kenn liggéeyul parce que alxuraan man xol laay waxee man soxlawuma dara mais li may gis président dimbali ñu bu dee góor nga góor góor góor nga yow dimbali